asalaamaaleykum Seydou Nourou jëf dal leen jàmm bisimila leen ci xibaar li ci gën a fas mbir Ousmane Sonko ak Adji Sarr kuréel bu boole ñi yëngu ci kinésithérapeute waaye tamit doon ay rééducateur bàyyi nañu plainte bi ñu sumboon dañoo taxawoon ngir doon parti civile ci mbir moomee tournée économique bi nga xam ne njiit da ko fas yéene tàmbale ëllëg ca Fatick moom Abdoulaye Wilane di maire ba dafa fas yéene fàttali kii di président Macky Sall digga yim fa amaloon ca conseil des ministre ya doon faral di am mu sax wax ne ba tey gisaguñ fa dara ñàng mekk ñàngale mi examen yi dàkk nañu leen li ci mel ni CFEE ak entrée en léegi ñu ngi ko fas yéene amal juróom benn fan ak juróom ñaari fan ci weeru juillet bi ñu dëgmal naka noonu baccalauréat général ba tey ci weeru juillet waaye ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bu dee nag lii di BFM la moom moo gën a sori ndax mu ngi fas euh, mu ngi war a am ci juróom-ñeent fan ci weeru août bi ñu dëgmal ba tey ñaareelu pàcc xibaar yi xibaar yi bitim réew ak Anna Rocha tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne gis-gis président Macky Sall euh, ci diir bu gàtt daal jot na yëkkatee kàddu yu bari ngir ñu xoolaat li ñu war a def ci réseaux sociaux yi waaye tamit ci tasum xibaar nan lañ ko mën a jàngatee waxtaan wi ci njeextalu xibaar ci technique bi Aliou Ba Yacine Pouy ci digital ba salaamaaleykum. Seydou mbokk yi jàngeen jëf dal leen jàmm dañ koy tàmbali député maire bu Kaffrine Abdoulaye Wilane nag euh, dafa nag fas yéene sax naam teeru njiit réew mi di président Macky Sall euh, ci ndukkumaan euh, ndax dafa war a tàmbale foofu ab tournée économique ni ki ëllëg waaye nag moom mii di Abdoulaye Wilane dafa fas yéene fàttali kii di président Macky Sall digg yi mu fa ca jamonoy conseil des ministre foofu ca Kaffrine waaye ba tey foras daal di xiddee ndax daal bëri na loo xam ne manqué na fa Oumar Ndiaye ci ay ay le député maire Boukafrine Abdoulaye Wilane narratero, teroo présent président Macky Sall bokku na ci jambat yi mu jor bi ci jitu li ñuy wax baaw bolo boo demee ba joli fitna la fay jor tali ngande bu bes bi ak tayba nga xamne su tawé lu hôpital bi ñong ñong ñong ñong mëna mënatee jóge ko tayba bay xalaat faju bi te foko nañ ne yoonu ngande wi buñ koy defar dana def ay cël dugg biir ngodi ba dugg biir kàccot dugg tayba régler problème accessibilité à tayba ñi bëgg itam ci ñu mu gëna gaawé domaine agricole bu buleel président ñi ngi sakku ñi gaaw ko doral bam sotti sa jamono yaaka nañ ne yoonu señ ci wanar jëm ñoro ci yow lay xam nañ ne wu xalif général des mourides la te yaa ko diggee woon ci conseil des ministres ci président yoonu Koungheul Daara Jolof boobu itam diggee ci téeméeri kilomètre ak ñaar fukk yoonu woo xam day day traversé Malem Hodar ak Kaffrine jaar Xelkom Daaru Minam 2 jëm jëm ngeen ñu bëggoon président nga fexe lëkkale université bi ak hôpital bi sos benn UFR ñu lay ñaan ca frontière Gambie ñu am un centre de santé bu mag ci Nganda. moom député bi di fàttalil njiit réewum président Macky Sall ne diwaanu Kaffrine lu ci ëpp ay baykat leen te war naa gën a bàyyi xel. lu jëm ci walu ndox ngir yombalal askan wi seen liggéey président ndox day lu itteel doomu adama la dem nga ci ay monor yu rëy rëy rëy dëkk boo dem Sénégal am na teen te ndoxam teen kenn du ko jaay ñu lay yelwaan di la xelal pour que teen yooyu ñu rof ci ay pompe solaire terewul nag lu na jéego yi njiit réew mi jot a def fi ci doonu Ndukumaan di sàkku ci moom mu gën a biral loxom ci diwaan bi nga xam ne bëri na lool lu mu tumuranke Kafrin Omar Ndiaye RFM Omar Ndiaye njiitu réew mi nag bu yegsee foofu ca Ndukumaan rawatina ca Fatick foofee nag war na fa inaugurer hôpital bu bees boo xam ne daal Euh, ma nga foofee mu jar ndax hôpital niveau 2 la jar na toll ci ñaar fukki milliards suñuy koppar ñu def nag ñoo xam ne dañoo xarañ ci yenn euh, spécialisation yi waaye tamit am na lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay euh, lal mu wax nag tàmbalewaat ci week-end bii nii ay tournée économique njiitu réew mi daal dina ci profité ngir fexe ba inauguré ay euh, hôpital yu bees fa ca mel ni Kaffrine ak gu waaye nag professeur bu médecine di El Hadj Niang di ko xamal bu baax a baax daal ngir mu moytu nekk yenn yi rawatina sax la fa la am foofe ca hôpital Magatte Lô bu Linguère buñ ñu sukkandikoo ci président bu ligue des consommateurs du Sénégal euh, faw nak euh, kii di président de la république dal di euh, dugal loxo yi ñi yëngu ci mbirum paj mi rawatina sax ñi war a defar yenn yi ci hôpitaux yi professeur El Hadj Niang moom mu nekkoon tey ganu RFM matin ak Babacar Fall ak Georges Diop Diop. li nga xam ni mooy question bi ñëw toujours ci bopp nit ñi ci contexte bi ñu nekk moo di mbaa hôpital yooyu ñuy inauguré li xewoon bi ki démb hôpital Magadou dootu fa xew et euh, wolof devenant docteur amna waye def tor amna et yal na nu yàlla musal waaye nañu jéem ba l'hôpital yooyu duñu nekk bërëbu def tor comme tor yi nga xamni et amoon na ci hôpital Magatte bi mana hôpital lo gis rek même ab ab université sax kenn du jog rek dal ni dañ koy defar buñ koy defar il faut que ñu saytu mbir mi sonto te xalaat préparer et amna yakar et yaakaar rek laa am ni actuellement et saytu nanu ba xam ñan lañ fa war affecté parce que hôpital kenn du ko tabax ba pare nan kan lañ fa war affecté te li ñu gis nag mooy le plus souvent loolu dafa am problème dañuy créer école ba pare ñu ne amuñu enseignant dañuy créer hôpital ba pare ñu ni amuñu médecin amuñu matériel loolu du lu jaadu du lu baax te bala ñuy tabax bala ñu jënd machine euh, li xew bërki démb rek ci affaire mbas mi am na xaalis bu bari boo xam dépense nañ ko man dem naa ci ay hôpitaux yu bari visité leen mais yi ma visité yëpp machine yi nu installé yu bare nga ci yoo xam ni doxul yàq la te ba ñu jënd machines yi également wax dëgg fa yàlla man gisuma fu nu woowee fajkat yi ñu euh, def liñ daan wax réunion def seen appel d'offre wala boobu bu ñu def seen appel ñu ni man machine bi laa bëgg ñu dox ko liggéen ko saytu ko tey jii boo demee ci hôpitaux yi machine ya fa nekk yëpp li yàqu li paan mu ëpp foofu liy dox mu ngoog mu nekkoon na ñaaxi kii di professeur El Hadj ak maire bu euh, Kaffrine di Abdoulaye Wilane ñi euh, juróom benn simili moo lalu ci benn waxtu fii ci RFM pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor RFM xibaar yu wóor te wóor dañu waxtaanee mbiru Ousmane Sonko ak Adji saar kuréel bu boole ñu yëngu ci wàllum kinésithérapeute waaye tamit doon ay rééducateur ñoom dañoo teg ci suuf plainte bi nga xam ne moom la ñu summoon léegi sax dañoo nekkatul lii di parti civile ndax dañoo jàpp ne daal ci boobu la mbir li ñuy wax délit de viol rek lañ ci euh, teggat ñoom nag euh, ñu nekkoon foofe ca Saly wax tamit yeneen yeneen soxal fekke woon seen waxtaan yooyu Abdourahmane Diallo. ginnaaw coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko kinésithérapeute yi nekkoon ci Sénégal dañu xamle woon ni dinañu porter plainte waaye tamit nekk parti civile ci dossier boobu tey jii nekkatuñu ci taxawaay boobu Cheikh Seck di njiitu association bi muy wax li waral li ni mel. dafa am ñetti fànn yu amoon benn fànn bi. Il faut opposer opposé ñaari nit c'est-à-dire ku nu accusé viol ak Kenem. beneen bi mooy exercice illégal de la profession de kinésie, beneen bi mooy ki ubbi cabinet te amul autorisation donc ñaar ñooñu moo nu concerné mais dans ce dossier là bi nga xamee ne moo demoon tribunal ça concernait deux personnes pour une affaire de viol donc nous, on a voulu se conseiller en partie civile mais le procureur n'a pas voulu aller dans le sens de l'exercice illégal donc mënuñu conseiller wu ci dul loolu part civile motax tax bi ñu demee waxanteeg sunu avocat mun ci dossier boobu mënu leen ci conseiller part civile looloo tax aussi ñu reculer. seen ndaje bi nga xamné amal nañ ko ci sali kinésithérapeute yi xamle nañu jafé jafé yi nga xamné tamet dañ koy jankontel seen i liggéey. gis nañ ni aussi ci euh, nu mu développement wu euh euh kinésithérapie plan de carrière mi ngi ci. ñi ngi saluer peut-être signé nañ décret bi mais décret bi dafa am ben arrêté aussi bo xamné bu ñu wara signé ministre de la santé moko wara jël mu fexé ba arrêté bobu comme niñu fekk perte nañ ay 9 ans 10 ans ñu bañ ñu la ci lolu parce que mbirum jang du mbirum nombre d'années contenu programme bi ngay jang la mo ci am solo. kinésithérapeute yoyu di rafetlu hôpital ak bërëbu faju yi nga xamné tabax nañ ko ñuy ñaax nguur gi mu jël ay nit ñi nga xamné xarañ nañu waye tamit ñu teg leen ci anam yu jagg ngir ñu mëna liggéey ni mu waré RFM Mbour Abdourahmane jàll ñu waxtaanee syndicat bu ëmb euh, ñi yëngu ci wàllu pharmacie privée fii ci Sénégal euh, ñoom nag dañoo fas yéene daal dakkal jaay yenn ci ay médicament ba seeni njëg ñëwaat fa ñu ne woon ndax dañoo jàpp ne njëg yooyu nit ñu niñ ko yokkee dafa doy waar ëpp na ba jéggi dayoo ndax bu nekkoon juróom fukk mu nga tey ca téeméer.

réew yépp ci àdduna ñoom ñooy seet garab yi ñu soxla seen biir réew ñu ne lii lañ soxla mu circuler maanaam garab gi dox ci biir réew mi loolu nag politique boobu douane da koy accepté direction pharmacie accepté ko médecin accepté ko population accepté ko donc ni ñu bàyyee garab direction la pharmacie moo am sañ-sañu ne lii mooy garab ak lii du garab je ne pense pas que ce n'est pas du rôle de la douane de vouloir définir et de déclasser garab kenn ko mën a déclasser mooy ñi yàlla jox compétence ñu war ko def loolu nag dañuy ñaan population bi également ñu xam ni

variant yi tamit bi amee aussi ministère jël na ay ndogal pour que ñu gën a renforcer surveillance bi surveillance euh, notamment frontières yi frontière nga xam ne que ci terrestre bi mooy maanaam ci suuf wala ci jaww ji wala mooy ci avion wala ci bateau. waaye nag loolu aussi pour euh, xam ne que loolu baax na mais buñ ko gënee teengal mesure yooyu buñ ko gënee teengal dina tax ba xëy na euh, mutant yi ñuy wax wala variant yi xëy na pour ñu dugg problème du du yomb. parce que nit ki mun nañ ko defal test rek mais loolu aussi lu am solo la mais doyul pour que nit ñi mun a xeex variant bi nu mu waree. Sénégal Gambie euh, daanaka dara euh, séparé wu leen rawatina euh, ci frontière yi ci suuf foofa tam amul dara lu ñu ci yokku. frontière sax soo ci buggee wax frontière da ngay wax da nga bëgg rafetal waaye xëy na Gambie mu ngi ci biir Sénégal mun nañ ko waxee noonu. mbirum santé soo ko xoolee noonu nit ñi ñooy dox et cetera foofu frontière. mun nañu wax ne que mesures yi ñuy def ci frontière loolu de doyul pour que ñu mun a aar réew mi ni mu waree ci ay variant waaye nag ñu ngi def ay jéego waaye nag mun nañu wax ne doyul buñ ko yokkee daal ñu jël pour que euh, yàlla mun a mun ñoo musal ci musal ci ci feebar bi. ak RFM kumpa jeex na. ñu wax léegi ci njàng mekk njàngale mi calendrier bu jëm ci examen yi soppi nañu ko ak RFM. ñu wax léegi ci njàng meeg njàngale mi calendrier bi nga xam ne mu ngi jëm ci examen yi léegi soppi nañu ko euh, ndax daal lii di CFEE ak entrée en sixième ñu ko fas yéene amal juróom-benn fan ak juróom-ñaari fan ci weeru juillet bi ñu dégmal baccalauréat général ci weer woowee euh, lay am waaye nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay am ci weeru juillet bu ne nag BFEM moom BFEM moom moom moo gën a sori ndax mu ngi am. ci juróom-ñeent fan ci weeru bu ñu mal ñaari ministère nag mooy yu éducation ak enseignement supérieur ñoom ñoo waxtaan ba daal di euh, déggoo waaye nag fekkee woon na seen waxtaan bépp euh, iya ci euh, Sénégal ku Matadine Faye ba léegi ni ab projet la woon ñu mujjee koo jëmal datub l'examen yu jëm ci CFEE entrée en sixième BFM ak baccalauréat poussandi nañu ko jëwriñ ji ñu dénk wàllub njàng meek njàngale mi ak njàng mu kawe mi am nañu ab déggoo ci ay date yu bees Mamadou Talla mooy jëwriñ ñu dénk wàllub njàng mi réaménager un tout petit peu suñu calendrier dina tax na nag CFEE bi waroon commencé ci fin juin dina dem donc le 6 7 lañ koy def juillet soo le baccalauréat technique bi le 17 juin la waroon démarrer léegi nous ko démarrer le 1er juillet baccalauréat bi également dañ ko le 29 euh, juillet et enfin le BFM ñu commencé que le 9 août donc loolu moo am changement yi. donte yooyee date dina dugg ci nawet gi wante dafa fekk matukaay yi jël nañ ko te jox ndongo yi lu ñu soxla ci xam-xam daf ko daal di jaax jëwriñ ji. comme ni ñu koy waxee mun naa muy taw mais su dee day taw aussi l'homme face à une situation réagit. daaw si septembre lañ ko defoon et pourtant fexe nañu ba organiser suñu examen ren encore dinañu dinañ ko organiser donc euh, maa ngi wax ne rek en tout cas parents yi inspecteurs d'académie yi inspecteurs yi. Euh, les syndicats les partenaires les enseignants nous ñëpp nañu xool Nous nous ñu nous pour que date yi ñu nous ñu mën organiser examen dans de bonnes conditions. lu baccalauréat bi puusandi gi dina am njeexital convocation ngir mëna a ñëw ci l'examen examen yi candidats yi jot nañ ko ba nopi ci xam lepp Socé Ndiaye doon directeur office du bac. njeexital mom dina am mais yàq la bañ mu am bac bi bo xolé ci calendrier bi dañu wax premier jour li ngeen di def deuxième jour li troisième jour li li ko rek mais premier jour bi c'était le le premier juillet maintenant premier jour bi c'est le 29 juillet mais li des yëpp du soppeeku. jëwriñ gi ñu dénk wàllub njàng meek njàngale mi doon dajeek mboolem inspecteur d'académie yi yu nekk ci Sénégal ci àjjuma ji ngir sëgg ci ana naka la ñuy amalee yooyee l'examen gannaaw date yu bees ñu daal di amal. Kumba Sandiane fa jaajëf ñu waxtaane léegi agropole sud ña nga ca sud Sénégal nag ñoom dañoo lancé seen activité lu toll ci. juróom-ñetti junni euh, xëy la ñu daal di daal amal muy ay emploi direct ak indirect daal moom nañ fay xaar ndaw ñi nag ak soxna yi nag euh, yu gox yi di Kolda Ziguinchor Sédhiou mun nañ ci dal di am luñ nag bëgg mooy fexe ba gën a yokku daal li ñuy soppe yenn produit ci wàllu mbay mi Max Edr Kamfani ci ay leeral taxawal ci bu dëgër agropole yi rawatina agropole sud bi dafa mel ni lu jëblu rekk ci amal gestion bu baax produit agricole yi te it yokk niveau transformation bi nga xamante ne néew na ci kaddu jililoo coordinateur national projet agropole solo si mooy fexe taxawal wala lëkkale li ñuy wax wàllu mbay mi Sénégal ak li ñuy wax transformation coppi ko ba nga xam ne danañ ko mën a jëriñoo parce que liñ nemme ko ci

emploi yo xam ne danañ ko créer fexé ba nga xam emploi direct yi danañ ci def 35000 cinq mille emplois. ci kaddu adjoint gouverneur bi yoré lu jëm ci affaire administrative Modou Gueye faaw ñu am taxaway bu takku ngir projet bi mëna dox bu ba ci diwaanu sédiou donc il faut que ñëpp daal xam projet bi projet gouvernement Sénégal la suñ projet la ñu ñëpp su baxé waa sédiou la baxal su un problème it sédiou la am problème il faut que lool aussi mu leer du question gouvernement mi ngi fi def rek faut que sédiou way aussi ñu mëna jël affaire bi en compte man ka bolé sen bopp bu ko bolé sen bopp rek projet bi réussir que ku ci am ay difficultés difficulté wala ay manque d'information également nga nga ñew ci autorité administrative yi nga laaj leen ñom dañ xol le coordinateur national wala le coordinateur national ñu def ba trouver ay solution ndaje bi ni sa dañ ko daan amal ngir lancer officiellement activité agropole sud bi ci diwanu seju agropole boobu sax clé diwani Kolda seju ak Ziguinchor Max Euclid Kamfani ci seju ngir RFM RFM bitim réew. dalal Anna Roche Anna maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Seydou Nourou. ñu dem foofa ca Tchad kii di président Mahamad Idriss Déby nag dalal na ko ja politique bi ak société civile. bu ñu sukkandikoo ci euh, RFI nag li tax a jokk ndaje boobule mooy euh, taxawal conseil national de transition bi foofee ca Tchad waye itam euh, parlement provisoire bi nga xamantene mom mo wara euh, saytu nak doxalina gouvernement bi Lata élection yi nga xamantene mom lañu wara amal ci réew Tchad général Mahamat Debi mi nga xamantene mo jité jamono yi euh, réew ma nak nee du mom moy daldi tan ñi tok ci biir conseil national de transition bobé waye ñeneen ñi ñi wara war bokk kon ci ap comité leeral yi ak Awa ndaw yi nga xamantene ñoo war bokk ci conseil national transition bi daañu leen tabb te ku koy def di kuréel gi nga xamante ne ki ko jiite mooy ki ñu taftal ci président bi di général mi Djibadou na lii nag di bëgg-bëggu général Mahama Déby mu yëkkati kàddu googu ci kanamu ñiy def politique ak ñi bokk ci société civile ba kuréel googu nag ku ci bëgg a bokk ñoom nee nañu woon nañu ñëpp te tànn bi ñu koy tànn dañu koy jaarale ci yoon du am xàjj ak seen noonee dina leen may ñu am parlement boo xamante ne bopp njaaxaanaay correspondant ba toogal RFI ca Njamena di xibaar ne comité kon kilifa yi dañu ko yakamti té bo moy wul fileek weer daañu parlement de transition bobu ca wenen wàll ki jité conseil militaire de transition mom bëgg jébbal lengé yi bu transition bi jeexee maanaam nguuruk ndégandiku bi nga xamante ne teg nañu ko gannaaw Fatou Idriss Déby ñu fàttali ne am na benn pàcc eh, ca réew ma foofee ca càdd ñu njortu ne général bi mi ngi def lépp ngir mën a toog ca bopp réew ma ngir mën faa yàgg. Awa Mbaye Anna ñu wutali RDC di république démocratique bu Congo foofee nag parquet bu Gombe dafa daal eh, fas yéene daal maanaam jël na dogal te giir dundam eh, kii dal di. Euh, goro euh, général Delphin Kayimbi waaw muy euh, réquisitoire parquet bi kon am na yeneen ñeenti nit ñoo xamante ne ñoom luñ leen di tuumal ci mbir moomule moo di complicité parquet ci ñeenti nit yooyule lu mu sakku moo di ñu teg leen ay daan yoo xamante ne dina yàgg fukk wala ñaar fukk ci atu kaso yoo xamante ne war nañ ko tëdd verdict até bi nag ñu ngi xaar fukki fan ak ci fatali nak général Delphin Kayimbi jiite won renseignement militaire yi fofé ci RDC ñu ngi koy fekk mu fatu euh, ci kërëm ci wéru février atum 2020 Kinshasa. ñu waxtané jàppante yu metti yu am gis nga fan yi weesu diggante Israël ak Gaza conseil des droits de l'homme bu ONU nag ñoom daal dañoo fas yéene euh, ubbi ab l'enquête na mu gën enquête bu yaatu soxal li nga xamante ne moo di euh, euh, salfañe ak ak doomu gannaaw fitna yi jipp ci gox boobule kon enquête bi war itam Gustu, ci li tax daal saa muy am ay tension diggante ñaari pàcc yooyule ki nga xamante ne moo di euh, haut commissaire bu ONU aux droits de l'homme di Michel Bachelet euh, dal dina yëkkati euh, itam ay kaddu ci kanam conseil ONU bi moom li mu jàpp ne moo di frappe israélienne yi nga xamante ne door nañ ko ci kaw Gaza mën nañ ko sax nag considérer ay crime de guerre bu dee nag dafa laal ay civil yoo xamante ne laalewul ñu dara ak cow li premier ministre bu Israël Benjamin euh, Netanyahu dal dina yëkëti mom itam ay cadeau néna vote bi conseil bu ONU dal di euh, jël néna dal décision honteuse la ndax day encourager li nga xamantene modi euh, terroriste yi nekk ci aduna bi yëpp ci benen fan wa Hamas ñom dañ ko rafetlu ndax dañu jàpp rek ONU mu ngi tambalé kon aar li nga xamantene modi ak ak yelefu doomu Palestine décision honteuse mooy dogal dogal bu ruslu la. voilà. Merci Saïdou. gannaaw Anna Rocha Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou. dañ koy waxtaanee Coupe d'Afrique beach soccer te nag ci àjjuma ji ñu wax amal demi-finale yi Sénégal euh, war a laal ak ñi di waa Maroc. waaw Maroc bi euh, nga xam te ne xam nga ko bu baax. yow it ak ak euh, Anna Rocha ndax foofu ngeen jàngee waaye jàpp leen nag. Euh, Sénégal si la ñu jàpp euh, moo di euh, jekk na lool ngir mën a am ndam ci digganteem mag Maroc ndax lu yàggul dara ñoom ñaar sax amoon nañu jogante xaritoo Sénégal moo leen mujj daan waaye demi-finale gi boo mooy nag beneen xar kanam la waa Maroc di indi loolu dañ si ànd rek suñu ndaw bu njebal foofu la ca foofu la amal lii di beach soccer Coupe d'Afrique ba ànd si ki suuf bu match bi dinañ ko amal 16h ci naaj bu tàng bi fi ci Sali tangor bi avantage la ci gaynde yu Sénégal yi daan ñetti yoon Maroc ci gis-gisu seen sélectionneur Ngalla Sylla ñoom Maroc mom xamante nan tam nañ di si ñom ay match amical ñom xam nañ ñu bu baax ñun xam nañ leen techniquement ñom baax nañ mais des fois dañuy ñëw wax ñun début match bi indi physique bu indi lepp mais nga agali donc ñun match boobu day laaj patience rek xam ne sa càppaandaw ga des fois différence bi fa lay amé bu leen mëne nag teel jital jiital rek pour ñoom ñu def effort mo ñuy gënal toujours bu ko défé école bi parce que du nit ñoo xamante tam tangay dañ tàmm physique jeu match je suis qualifié final de la coupe du monde waaye gaynde yi war ñu ànd ak benn pression di kaddu ki fi nekkoon international di Jean Koupaki. si match bi ñun waruñu am benn pression si match bi parce que ñun dañu dañu war a nekk en l'aise si match bi parce que dañuy jouer équipe boo xam ne match ñu ñuy gagné léegi équipe boobu équipe boobu masul gagné moom si mental la mu ne kii moo man kon équipe boobu bu joué ak yow day taxaw déglu la parce que du la engagé jamais. entraîneur adjoint bu Maroc nangu na ni Sénégal équipe bu mag la waaye moom jàpp na ni am nañu chance si match bi Abdelatif Zidane. Oh, Sénégal on connaît bien xam nañu Sénégal bu baax a baax ndax amal nañu ay match ak ñoom fii ci Dakaru ñetti match amico Sénégal équipe bu mag la am juróomi euh, trophée te qualifié ci coupe du monde bi waaye ñun am nañu suñu chance te nañ dem ba jeex. lu weesu ndam li Sénégal faaw tamit mu gën a dalal xel supporteram mi ci lu jëm ci anam yi muy footballé.

polyvalent la ci équipe bu nationale bu beach soccer expérience juróom-ñetti at yi nga xamanteni ni ko ci sélection nationale bi nak mom la jëfëndiko ba daal di def ab doublé ci jongante gi doon dox digënté Sénégal ak Tanzanie tax ba Sénégal dem ci demi-finale gi. espérance mi ngi ci parce que bo xolé équipe bi à part gardien bi bokk naa ñi gëna a donc ku jël trois fois coupe d'Afrique dem trois fois coupe du monde amna lo xamanteni am nga côté expérience. nam Sénégal nak mës na dóor ñetti yoon Maroc ci jongante harito, lu yagul dara waaye lolé nak du mom moom ak i naataangoom ñu daal di naagu. non du yomb bien vrai que euh, Maroc gagné nañ ko match amical mais euh, amical ak tournoi bi du benn dinañ ko jël au sérieux te Maroc day bëgg dem mondial comme ñun donc ñun aussi tamit duñ ko bàyyi mu dem parce que ñun ñoo organisé. am ticket gu leen di yóbbu ci Russie 2021 ba noppi daal di dem ci demi-finalu mondial bi bokk na ci ay mbëbëtam. pour man amul dara lu ñuy prouver peuple Afrique fii nii objectif bi mooy dem mondial pour mën dem demi-finale dafa passé dañ manque sens ñu tey Portugal moo ñu ëpp expérience dañ koy d'accord. organiser CAN bi fii ci biir dëkkam nag. lu mu rêvé woon la te tamit dina doom gën a neex bu nu jëlee raw gàddu gi fii ci Sénégal. Sénégal boo xoolee jël que ko cinq fois dañ j'ai profité bu baax pour mën a jël coupe bi kër quoi. mu di nit ku njool moom Mamadou silla nag moom mooy joueuru Ligue 1 képp bu nekk ci sélection bi football ci gazon bi nag mi ngi koy booleeg bitu bi. yomb na yombul mais euh, fi ma dëkk côté place damaa ngi dëkk Yoff ba pare course bi aussi ñoo benn programme boo xamante ne même bu ma entraîné matin bi euh, ak Jaraaf le soir maa ngi doon entraîné terrain euh, sable di préparer tournoi bi. football ci gazon bi la tàmbalee woon. ca RS Yoff nga xamante ni fa la defee classe am yépp laata muy dem ca US Wakaam jaar ca AIS duwaan dem ca Jaraaf gannaaw ba mu fa defee ñaari at mu wutali biti réew dem Liban léegi nag dellu si waat na ci Jaraaf moom moomee sax de Aliou Cissé mus na ko woo en renfort jamono ji ay atam toll ci fanweer ak juróom moom Mamadou Sylla di rakk ci Ngalla Sylla mi nga xamante ni sax moo ko dugal la ci biti choc bi moom nag fi mu nekk nii ñeenteelu titre Coupe d'Afrique am soo Sodé Thiam geneen demi-finale gi euh, diggante Ouganda ak Mozambique lay daal di doon Mozambique nga xamante ni euh, daanaka daal xar kanam bi nga xamante ni wane ne ko ci gile tournoi euh, xaw na yéem gaay ndax ci pour bu mu nekkoon dafa dal di am ñetti ndam ci ñetti victoire maanaam ñetti ndam ci ñetti match yi nga xam moom la doon amal bokk poul ak Égypte ak ñi nga xam te ñoo di waa Maroc

Mais bon, après, on, on, verra la suite des, des événements. Quoi. 16h Mozambique Ouganda 17h30 euh, Diganté, Maroc lay daal di Sénégal ëllëg l'Union ñoo amal kon euh, finale euh, Coupe d'Afrique bu beach soccer foofule ca Sali jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne. des na. waaw ñu waxtaanee léegi lutte maanaam bëre boo xam ne. Ah. du ànd ak ay kurpañ. Mm-hmm. boobu la gën a bëgg sax ñun la faf. Uh, Kaolack moom moo dellu chef drapeau chef de l'état waaw ni ki tey jii la ñu koy daal di door ba eh, ci weekend bi na muy jeexee ca Kaolack foofu la ñu koy daal di amal des rendez-vous nga xamante ni wàllu takk yaram danañ ca ràññeek waaye itam wàllum caada itam dana fa daal di feeñ eh, loolu nag bokk na ci programme bi dañ siy daal di déglu Maam Koor Faye moom mi nga xamante ni moom moo di président bu CRG bu lutte bu Kaolack ci micro Ibrahima Diamé xam nga làmb moom cosaan la gis nga man mii bu may dem làmb bu maratee dugg bi rek daanaka damay ñibbi dugg bi mooy cosaan tëgg bi mooy

Euh, la ci dess nak dañ ko mëna a suivre en direct ci radio euh, Futur Media ñeel li du drapeau euh, chef de l'état ci wàllu bëre simple lay daal. léegi jeex na jeex na Cheikh Tidiane Diagne jaajëf. RFM askan wi. ngeen dégg ni ki démb président Macky Sall ne dal faw ñu xoolaat yenn yi ci tasum xibaar ba ci réseaux sociaux yi nak danaka ci diir gu gàtt yëkkat yooyu kaddu ci ni mel bëri na nan lañ ko mëna jàngatee Ali Mouba buñ qui est président association presse en ligne Ibrahim Lissa Faï, ordre pour encadrer métier journaliste bi président de la république proposé deux solutions. ngir Assenir, presse Sénégal mais xam nga pour nga am ordre déjà il faut nga li fi nekk nga saytu ko xool ba xam am na am na lu mu manqué wala am na lu ñu war a mottali wala daal euh, mu mu éprouvé c'est-à-dire nga def mise en œuvre bu mu éprouver nga doog a xam ne kat lii nii euh, mottul pour nga mën a andi ordre waaye li fi nekk appliqué wuñ ko jëfee wuñ ko. du lii muy gulet nag ñuy agité affaire ordre ngir tënk journaliste yi ci 2008 débat boobu amoon na Bakary Domingo Mané mi ngi fàttaliku. moom journaliste yëpp dañ ko rejeté woon Bakary Domingo Mané journaliste la nekk itam formateur parce que man euh, damay ko rek bu ñu euh, mettre en en place le le CRED le CRED qui a remplacé le correct. le débat s'était posé à l'époque ak ñom Latif Koulibaly et consort. mais nit ñi ñu bari dañu né bëgg ñu ordre euh, moo ñu ñu ci ordre bi fale donc finalement on a on a on s'est entendu sur un organe de régulation. bo xamné dal vraiment wa secteur bi ño ño def kii bi quoi ño def sen loi propre loi mais ñu ordre bo xamné dal bo défé ordre rek ça veut dire que yo tu donnes la possibilité au juge de pouvoir vraiment réguler

seen gam Opalia ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ma ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Macky dalatina ci kaw réseaux sociaux yi Vox Populi moo ko bind bi cim ndaje mu ñu doon def démb ci ndakaaru mu tënku ci juróom-ñetteelu assemblée générale bu plateforme des régulateurs de l'audiovisuel bu réewi UEMOA yi fa la yëkkatee kàddu yooyee Macky Sall ne muy sañ-sañ di liberté lu ci nekk dafa war am fu mu yem nekk ci média yi ak ci réseaux sociaux yi di saaga waate di sosalaate ak di woote fitna amul benn droit wala liberté bu jëwriñu sociaux yi moo tax muy sàkku ñu assainir milieu bi ba mu set wecc nee na wax yu ñaaw yeeg saaga yeeg sosalante yeeg finalante gi ñu nimmiku ci réseaux sociaux yi ci média yi amul dara lu ko mën may lasina kay moom xëy maye xibaar bi ci xëtamu njëkk ba di ñuy wax ne ordre moom le président Macky Sall bëgg andi ci yëf yi mu di ci liberté d'expression bi ñuy wax ci média yi ak jëf yu ñaaw yi ñuy joytu ci réseaux sociaux yi lu ci nekk président média la te amul benn qualification loolu dafee war a jóge ñu jóge ca dem ci soleil national mi xëy di waxtaan ak waxtaane avion bu bees bi ñu ne moom la état bu Sénégal jënd roppalaan Airbus A320 neo gi ñu jënd ngir mu war a ñëw wuutu Pointe Sarène ci réew mi soleil national bind na ne bu sukkandikoo ci xibaar yi mu am jàpp na ne njënd mi dañu ko yeexe waaye ba mu waree yàgg na du bëgg lu bakkane mbaa bëri tiitar wala di wanewu moo tax président Macky bi ngir Sénégal waaye noonee la ci doon sooxaale ba léegi sursoi nañu avion bi ñuy wax sax day coow li ak riir mi moo bari rek waaye bu ñu ko méngalee ak avion yi nga xam ne ñi ko fi jiitu moom Macky moom lañ doon dawal wala yenn ci njiiti réewi Afrique avion yi ñuy yéeg ci ngay xamee ne Airbus A320 bu Macky bi ñuy wax mbambuli moo rëy rek waaye du dara xottu kese na bari na ay président africain yoo xam ne ay Boeing 747 yor ñi ay A330 ay A340 Léopold Senghor yoroon roppalaan bu bakkane woon am lu nekk ci biir muy lal di bureau di frigidaire ay siège doré sax amoon na ci biir avion bi en attendant bi ñuy coow di yegsi ci réew mi borom réew mi di Macky Sall fas na yéene dugg biir réew mi ci samedi ji ak ci dimanche ji ngir amal li mu tuddee tournée économique Sud du Quotidien nañu ca Kaffrine ak ca Kédougou fa la jëm waaye li ñu naan ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn loole moo dal Macky Sall ci tournée économique am yi lu yées juróom-benn weer dox suñu digg ak élection locale yi président Macky Sall jamono joojee la taamu moom sud du gisee ci ne Macky Sall dóorati na gaañi kurpañ bi leen di daaneel léegi nag mu des ñu xam yan pexe la opposition bi di teg ngir mën a contrecarrer Macky Sall Abdoulaye Diouf Sarr bu Yoff ay pexem bu sottee dana dégg monsieur le maire de Dakar Le Quotidien nañu moom lébub Ndakaaru bi mi ngi joow gaalam wutali maire bu Dakar ne kàddu yi ñu dégg mu yëkkati ko démb day wane ne xelam jugul ci maire bu Dakar moom Diouf Sarr di ñu wax ci xët mu wax ubbil yéenekaay bi njiital conseil économique social environnemental ga woon di Aminata Touré journal bi nee nañu mi ngi ca kaw Mariama Sarr maire bu lax la mu yor moom Mariama Sarr di maire ba La Tribune nee nañu moom la kii di Aminata Touré bëgg a fuqarti Le Témoin nañu élection locale yi ñuy séntu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2022 li ñu ci nar a gis moo di waa kër Macky Sall yi di waa Benno Bokk Yaakaar kenn ku nekk doxal bopp sa bopp bu ñu ca pare soog a bennoo waat Savona Marseille créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Sengam Opalia ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. yi gis-gis. yegsi nañu ak gis-gis ñu ngi ci euh, jokko bekk Cheikh Fall Cheikh Fall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. expert nga en sécurité numérique doon tam président Africtiviste euh, ñàkk dégg nga li nga xam ne moom la njiit réew mi wax maanaam ñu bàyyi xel ci yenn yi rawatina nag ci. Euh, tasum xibaar ba ci réseaux sociaux yi moom nag ci diir gu gàtt daal li mu yëkkati ay kàddu jëm ci bari na ban njàngal lañ ci mën a am. waaw njàngat biñ ci mën a am. mooy jaaxle ndax. Euh, laata laata ngay dem euh, maa ngi la jëlaat ñu ngi tam ci liñ bi ak Momar Thiam maman maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. Donne docteur en communication politique, euh, directeur euh, école hautes études en information ak communication ñëwaat ci Cheikh Fall tan euh, Cheikh ñëwaatal ci ci laaj. waaw jàngat bi waaw mm. waaw mm. jàngat bi ci njëkk am mooy mooy jaaxle ndax Sénégal depuis 2008 dafa bokk ci dëkk yi nga xam te ni dañoo njëkk def taxaw jëm ci lépp luy jëm ci réguler ak organiser cyberespace. 2008 mm. ba tey li ñu am ci loi mat na juróom-ñett boo koy

waaw encadré am na mécanisme yu ko mën a def léegi mécanisme yooyu ndax am nañ doole yu ñu ko defee ndax am nañ nit yu mat yu ñu ko defee ndax am nañ xam-xam bi ñu ko defee loolu moom moo jar taxaw seetlu bi waaye bu dee encadré bi nga xam te ni moom moom moo nekk ci xelam xaj na ndax euh, ni ñu koy waxee day mel ne ku bëgg a jël yàpp bi dóor muy répression hmm. loolu moom dana xaw a jafe lool ñu mën ko indi ci internet pour mu mën a euh, tax nit ñi euh, xam naka la ñuy jëfandikoo xarala yi. Hmm. alors docteur Momar Thiam euh, ci wàllu communication politique ak directeur école haute étude information communication ndax jàpp nga ne bu président waxee ni lu mel ci dirgu gu gàtt dafa am loo xam ne vraiment da ko bëgg xëy na da ko waxagul. mais xëy na aussi dafay préparer nit ñi ci li monsieur Fall di wax léegi ben forme de répression bo xamné ne munta ne munta ne parce que tey internet réseau réseaux sociaux yi dañuy nek lo xamné aduna bi yépp ñoko bokk à moins que à moins que ñu mel ni Chine am suñuy propre moteur de recherche mën ko contrôler mën ko réguler mais comme ni ko monsieur Fall waxé toute euh, législation manam euh, loi qui yi nga xamné ne yëpp ñu ngi réguler depuis 2008 Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo ko njëkk mm. donc lolu yépp am na fi

ñii di diffamer ñii di yàq der ñii di wane image yoo xam ne nii. méngoowul ak li nga xam ne mooy sunu askan. Mhm. mais président nag xam na ne aussi ñu bari ñi nga xam ne dañu contre politique am ñi nga xam ne dañ koy ŋaññi. Mhm. ñu ci bari ci réseaux sociaux yi lañ nekk ma yaakaar ne looloo yokk tax. à chaque fois muy def ay sorties maanaam pour prévenir mais. je pense que dafay tamit opinion ndax tamit loolu mën na koo bañ parce que tamit nit ñi aussi xëy na am liberté wax tamit la ñu li ñu li ñu li ñu li ñu gëm. Mm. moom ci boppam bañ ko waree fal. réseaux sociaux yi am nañ ci seen wàll ak média classique. Mm donc dafa war a xool ci yan anam ak li nga xam ne moo existé comme structure tey di réguler comme ni ko monsieur Fall waxee. Mhm. ci naka la ñuy def ba manam atténuer atténuer lolu manam mm-hmm. jëm ko jëm ko woyofal wàññi ko mm-hmm. mais mu réguler ko wala mu def un système répressif kooku yakar na ne amul euh, Sénégal amul kàttanam mm-hmm. yenn pays yi ko bëggoon sax jëm nañ ko mais mënuñu ko gis nañ fi ay pays comme Birmanie ba ñu tëjee internet nit ñi jaar nañu feneen sax pour wane li xew foofu di ŋàññ li xew foofu donc loolu dafa nekk loo xam ne ni tey dafa laaj benn réflexion boo xam ne dafa war réunir acteurs yépp yi nga xam ne ngi évoluer ci loolu acteurs institutionnels yi mmh. acteurs privés les spécialistes notamment de de des réseaux sociaux et notamment euh, des des techniques de l'information et de la mmh. communication mmh. xool naka la ñu tënkee benn charte boo xam ne jaarale ko ci benn structure parce que tu yi fi nekk dañoo bari te ku ci nekk il se marche sur les pieds maanaam dafa mel ni loo ku ci nekk bëgg nga def loo xam day bëgg président ne xëy na loolu la. moo tax kenn déggulul moromam. dinañ dinañ ñëwaat ci loolu léegi euh, docteur Momar Thiam alors mhm. Cheikh Fall di expert en sécurité numérique yow tey euh, euh, fan nga jàpp ne la ñu war a jaar wala lan la ñu war a mën a teg ba ñu jàpp ne vraiment léegi moom mun nañu wax sécurité am na wala est-ce que sécurité boobee mun nañ koo yaakaar ci numérique bi. xam xam nga sécurité moom du mës a mat cent pour cent mënul ne ba ci àdduna bi li tax seen rajo boobu ngeen teg fa ay vigile ci suuf mm. ba pare di tëj ay bunt mm. te terewul nit ñi am nañ police ak gendarmerie waaye terewul leen ñi sàcc ba léegi mm. internet it noonu la demee bu ñu ko bëggee sécuriser tamit wala ñu bëgg ko assainir nit ñi nga xam te ni sàcc ak euh, wax lu ñaaw ak euh, def lu ñaaw wala def lu bon leen tax a jóg ñooñu faaw ñu def ko léegi nag li nguur war a def mooy indi ay mécanismes yu tax ba ñooñu jugee nar a def

naka lañu mën a def ba ñu war a wax lu ñaaw wala jëf lu ñaaw ci internet bañ koo def. Hmm. xam nga nit bu xamee ne bu defee lu bon am na lu ko ci mën a fekk muy kaso wala muy muy sanction kooku mën na ko bañ a def. Hmm. mais ki xamut ne am na euh, euh, loi. ndax da nga jàppoon yooyu dafay xaw a des dafa xaw a manqué maanaam daan des daal daan moo des. daa des bu bëree bëri bëri ndax ñun ñi di utiliser internet xaj na ñun ñi spécialistes yi ñoom ñoo xam loolu mais suñu mbokk yi nii nekk ci ay 400 kilomètres. 500 km de la capitale xamuñu sax ndax loi sur la cybercriminalité am na xamuñu ndax loi d'accès à l'information amna. ñooñu dañu japp ne internet rek sa euh, espace personnel la ay opinion kay avis nga fay def te sa xalaat da ko wara wax hmm. donc ñoom nañ leen nañu leen tagaté, non la japp jàpp ne noonu la ñuy mais ni ñu yare ñun dans la vraie vie tere ñu àndandoo ku warul andal, tere ñu génn timis tere ñu saaga tere ñu sànni xeer tere ñu wax lu bon ci dans la vraie vie noonu la ñu ko teree ci internet. Hmm. ni ñu ko teree ci internet it amul benn benn ñaawteef bu nit mën a def ci internet tey te amul loi bu mën a tege sa kaw. Hmm. donc mécanisme bi ñu war a def mooy fexe ba loi yu existé mën a am doxalin bu yees ba pare nit ñi xam ne loi yooyu existé na buñ ci jógee nag doog di yar ak sensibiliser mooy accompagner nit ñi pour ñu xam ndax fi ñu jëm société de l'information bu bees na société nag buñ ko waxee dañuy am ay relations sociales relations sociales yooyu li koy wund mooy naka la ñuy tàggatee pour ñu mën cee jëfandikoo waaye rek bu génn hmm. cravache wala génn yat pour hmm. door ku def lu warul lu warul def hmm. alors ñëwaat ci euh, docteur Momar Thiam alors docteur ndax jàpp nga ne tey sànq dégg na nga wax foog ñu am benn charte charte boobee bu naroon am euh, nan lay demee ak ñan ñoo koy ŋànk mais xam nga charte boobu dafa am lu ko jiitu état dafa am benn prérogative maanaam loo ko war loo xam ne mënut a bañ a ne mooy li ñuy wax non seulement la prévention mais la communication publique. Hmm. dañ ko gis maanaam ci affaire accident de la route yi gis nañ ko ci affaire tabagisme maanaam tox mi gis nañ ci ci affaire utilisation des drogues bu ñu xamee ne am na loo xam ne ni tey nit ñëpp ko bokk te ñu ci bari comme le dit monsieur Fall ñu ngi à des centaines de kilomètres xamul ne xamuñu sax ne loolu mën na dal seen kaw ñooñu da leen war a informer prévenir leen. Lolu, c'est du domaine de la communication publique donc ni ñu koy défé ci prévention routière non lañ ko wara défé tay ci l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux ci dëkk yu mag yi nga xamné sax ñom ay démocratie yu avancé lañu moom tuwaay am euh, manam li ñuy am comme moyen ñun amuñu ko ñom dañ koy def alors que xalé yi depuis l'école dañ leen di jàngal internet lan la espace bu ouvert la mais dafa am ay barrières Il y a pas de des zones de non-droit mënoo def loola la neex parce que euh, loi mën na dal sa kaw donc loolu moo jiitu bu ñu defee loolu ba pare nga xam ne dafa lekk dafa laaj quand même ay moyens ba pare dafa laaj du temps pour que nit ñi mën a comprendre ñu war ko bamtu ci kàllaama yépp nit ñi xam ñaareel bi mooy am na ay structure ay commission ay organes de régulation yu fi nekk dañoo bari organes yooyu yëpp mën nañ ko war a tënk ci benn organe bu mag boo xam ne ni hmm. dafay réunir les acteurs de l'État les institutionnels hmm. réunir les experts en la matière maanaam ñi nga xamne ne seen xam-xam dafa xarañ ci loolu. Hmm. réunir ñi nga xam ni tay c'est les médias et les médias classiques parce que médias classiques seen bop am nañ aussi hmm. des sites internet am ñoo xam fa lañu jaar pour di def ay ñaawteef. Hmm. tous les jours nga ubbi benn site gis ñu saga nit wala ñu wax ko lo xam ne warta am ñooñu buñu ñu toogee waxtaan càmbar loolu gis ne législation bi manam loi bi nga xam moy réprimer lolu existé na ñu wut benn charte teg ko ci. xamal ko ñëpp ba paré nak dafa laaj du temps parce hmm. que communication faut laaj du temps. Hmm. ko ci nit ñi xam ba tous les jours. Hmm. parce que la répétition est une pédagogie. donc buñ koy defee comme koy ci film boo xam ni yenn nit ñi dem mode de fonctionnement. très bien je pense que euh, docteur directeur école haute études en information en communication jaajëf docteur. si merci jërëjëf jaajëf bu baax a expert en sécurité numérique président bu Afrique TV jaajëf sëñ euh, Cheikh. merci jaajëf yéen tam yi mu